di joxuma ko moromam joxuma ko ma ànd ak ñoom di liggéey yor sama oto ba sama oto yi paan foo jëm ma dugal la fa boo gee loo bëgg soxla ma ànd ceeg yow di sonn ci askan wi te joxuma benn post joxuma benn xaalis ma ànd yow ba nga jël réew mi man Aliou Diouf nga bëgg a jël keneen bëgg ko teg sama kaw damay lànk ci solo même bu yàq si président président war naa bàyyi xel loolu war naa fàttali ko démb te président sax xam na ko xañ na ñoom booy ñoom yaa xam mbay ñoo ñëwee nit wax seen wax rek man si solo deful ma dara waaye nag dama koy xool sama bopp ba man tamit noonu laay noonu laay réagiré nga dégg président moo ko war a waxtaan ak moom xam ne kilifaam la ci ci ci ci ci ci ci Sénégal moom Macky Sall xam ne mooy kilifa mooy mooy mooy kilifa ak Cissé Lo mu xam loolu xam tamit Cissé Lo tamit magam la bi ñu ànd ñoom ñaar di rek seen daqaar seen buy mën fekkeewu ma ko ñu mën a waxtaanaat seen biir mën a ànd liggéey man loolu laa jàpp te jàpp naa ne jàpp naa ne ñu wax nii ñëpp seen bopp la Farba Ngom nag wax na boppam nee na ab géwél laa damay woyaan di lekk maa ko diglu émission moo ko wax kon Moussa Sylla man li ma koy conseillé ci côté boobu na bàyyi Farba Ngom ni ma koy bàyyi moom moom nee na moom bu nu commission ba mu siseloo nekkoon commission mu lekk ko ab géwél la loolu da ko dacee yàgg kon na ko bàyyi te xam na ne géwél moom ñaari façon géwél la géwél bu gore du wayaan kenn géwél boo xam ne xam na askanam xam fu mu bokk loo ko jox na ci poste a géwél boo xam ne day wuti lu ma am moom nag na ci seet ci yooyu Farba ban la ci mu jàpp ko ci côté boobu te bañ te bañ te bañ ko tontu Thank you.